si juróomi député la ñu ñoo bokk si wote leen lu gën sénégalais yi bàyyi leen di wote les lois contre les sénégalais vive le Sénégal vive le Sénégal je suis là pour les sénégalais je suis le porte-parole des sans-voix Sénégal je suis le porte-parole des sans-voix vive Sénégal